subhanahu wa taala bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi dellu siwaat nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru alquranul karim téere sunu borom bu màgg bii nga xam ni weer wi ñu nekk muy weeru koor mooy weeram ndax xam-xam nañ ni borom bi subhanahu wa taala mu ni inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzilin borom bi subhanahu wa taala moom moo wàcce alquran ci guddi gu barkeel mooy guddig weeru koor waaye guddi googa mooy guddig laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr kon téere la mu boo xam ni asalafu saalix ridwanullahi ala aljamii saa bu weeru koor masaana ñëw seen yitte yépp dañ koy bàyyi sóobuwaat ci téere sunu borom bi ci di ko jàng ak di ko seetloo ko settantal ak di ko nafar te it lii moom lañ xamee ca jamono yonente bi alayhi salaatu wassalaam ila yawmina hada kon dellu siwaat nañ suñu bindu tafsirul quran al azim sunu borom defaloon na tawfiq ci suratul ahzab ba ñu yegsi woon ci laayee ñaar fukkeel ak juróom ñaar tey bi xusne tawfiq al baari jalla fi ula ñu ngi tàmbalee ci laayee ñaar fukkeel ak juróom ñett sunu boroom di wax ni acudu billahi alsamii alalim min alsheytan irrajim min hamzihi wa nafxihi wa naftih bismi llahi arrahman arrahim ya ayuha annabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alxayata addunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا kon ci ndimbalu sunu boroom ak yërmandeem laaye yooyu moom mooy nekk sunu bindab tey ci suuratul ahzaab bu ñu àndee fàttaliku ci bopp suuratul ahzaab waxoon naa leen ni suuratul ahzaab ak suuratul nuur am nañ ay buumi jokkoo yu dëgër ak suuratu nisa li ko waral mooy daf caa dajale ci ay njàngalay sharia loo xam ni ki ko peeg xaw tuuti kon ñu wax ni genn wàllu sa diine peeg nga ko bu loolu rombee suuratu nuur dafa jagoo mboolem jullit yi donte ci kër yonent bi la tàmbalee alayhi salaatu wasalaam waaye suratul ahzab nag moom dafa ñëw pour redresser ak defaraat jubbantiwaat kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam xam ngeen ni am na joxañ boo xam ne ku ko jëmale ci kilifa ña topp ca kilifa ga kon taxatun di wax moo tax yaa ayuha nabiyu taqillah ee yow yonent bi yow la ñuy wax nga ragal yàlla loolu laa shakka ni daf doon tiitloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye dafay taxaat keneen ku dut moom nga xam ni yow kat min baabi awla yaa ca gën a dugg beneen bi ci des mooy suñu yëkkatee joxañab jubbanti jëme ko ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu firnde la ci joxañub jubbanti boobu kon làmb na geneen góoru jullit gudul yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye suñu jëlee joxañab jubbanti jëmale ko ci kaw soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la muy wane mooy keneen ku dul soxna yonent bi ci jigéenu jullit ñi war naa xam ni kon moom baaraamu joxoñ boobu dal na ci kawam kon bindab tay bi ci ndibalu sunu boroom dafa mel ni nag yàlla daf koo jagleel soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye alxaafid ibnu kathir mu ni sunu boroom kat subhanahu wa taala aaya yii muy wax daf ci wax soxna yonent bi waaye ñu dul soxna yonent bi tamit ci lañ dugg mu ni loolu lu mat a xam la te loolu lu am solo la ndax léeg-léeg am na ay aayaat yoo xam ne di nga dégg ñenn ñiy wax ci turu diine da ngay dégg ñu ne aaya sàngam yi ci soxna yonent bi la wàcc dëgg la ci ñoom la wàcc waaye mag yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a dégg alquran gën a xam asbaabu nuzul ya gën a xam ci lan la alquran ja doon wàcc ñoom dañ ko caa boole moo tax alxaafid ibnu kathir aaya ji ak ji ni mel ci suratul ahzab dafa wax nii yaqulu allahu taala واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ونساء المؤمنات أيضا maanaam borom bi subhanahu wa taala aaya yii nga xamante ni moom la wax kat maanaam daf ci wax yo soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñeneen ñu dul soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit dañ ciy dugg kon loolu firnde la bu lay wan ni kon soxna yonent bi dañ caa jiitu ca yedd ga comme ni yonent bi jiitoo ci yow nabi taqillah laa shakka ni ñëpp xam nañ ni ittaqillah bu ko yàlla waxee yonent bi sallam keneen ku dul yonent bi tamit dugg na ci sunu borom mu ni ci aaya ji nga xamante ni moom la ñu tàmbalee sunu borom subhanahu wa taala mu ni yaa ayuha nabiyu eey yow yonent bi qul waxal li azwaajika ñeel say soxna nga xam ngeen ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajale woon na ci ay soxna lu mat fukk ak benn ñaar ñoo faatu ci kanamam kan ak kan xadija ci kanamam la faatoo zeynab binti xuzayma ci fa kanamam la faatoo ñaar ñii rek ñoo faatu ci kanamam yonent bi suul leen waaye ñi ci des ñëpp fi leen yonent bàyyi moo tax yonent bi bàyyi juróom-ñeenti soxna ci ginnaawam kon sunu borom mu ni yaa ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwaajika waxal say soxna ni leen in kuntunna su fekkee da ngeen a nekk turidna al xayaata dunya di bëgg àddina àddina yitteel leen ak puurit meeg poñent porñent mi wa zinataha ak taar taar yi ci nekk ñu tol ni yéen di soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bët bi leen àddina bi yépp di xoolee ak orma ji ngeen am nit ñi liñ leen respecté ndax yéenay soxna yi sunub yonent alayhi salaatu wasalaam ku yaakaar mbaax ci kër seen kër la ko gën a yaakaaree ku yaakaar jubbantiku ci seen kër la ko yaakaaree ñépp di soxlaa may soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir doom yooyu bokk ci ummahatil muminin sunu borom mu ni éey yéen ñii nag faw ma wax ak yéen su fekkente ni àddina moo leen yitteel ak puurit mi porñent mi poñetum àddina bi ak taar-taar yi fi nekk fa taalayna kaay leen yéen ñëpp ngeen dajaloo benn place umattiakunna ma waajal leen ba mu mat wa usarrihkunna ma yeewi leen saraahan jamilan yeewu gu rafet aaya ji mbokk yi comme ni ko mufassiru yi di waxee dafa am sabab xam ngeen ni alquran dafay am li ñuy tuddee sababu nuzul xadis dafay am li ñuy tuddee sababu wurud saa boo déggee sababu wurudi hada alxadis mooy xadis bi ko yonent bi saa sallam di wax am na lu ko waral comme yonent bi mu ne bi mu ne ndoxum géej day lu laab la medd ma fay génn lu dagan la parce que ay mool ñoo ñëwoon ci moom ni ko ñun kat dañuy dem ci géej gi dañuy yore tuuti ndox buñ ko jàppee dootuñ am lu ñu naan te buñ ko naanee duñu am lu ñu jàppoo est ce que ndoxum géej mu xat mi mën nañ cee jàpp mu ni innal maa nu mu tuddati inna albahra tahuru maauhu huwa alxillu maytatuhu wa tahuru maauhu alxillu maytatuhu kon xadis boobu bu ñëwee lan mooy sababu wurudam dañuy wax ni qissa bi mooy sababu wurudam amma alquran tamit day am lu ñuy tuddee sababu nuzul mooy ñu xam ne nangam ji moo tax mu wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog baat jamono ay soxnaam bu leen fàtte ni ay nit lañ ko nit ñi gis nga de comme ni yonent bi nekkee nit comme ñëpp nag qul innama ana basharun mislukum waa yuuxa ilay wax leen bañ dégg nga leen bindeef laa bala ñu naan la malaaka nga gis nga de aay ji mu waroon nañ koy jàng fii ci Sénégal moom ndax ñun moom jàppewuñ yonent bi nit alayhi salaatu wasalaam ndax su fekkee am na ay xeeti mbindeef yoo xamante ni jàppewuñ leen ay nit ba di ko way di ko tagg di ko def ci ay cassette publiquement nit ñi di ko dégg kon yonent moom xam ngeen jàppewuñ ko nit waaye yàlla loolu lay bañ ñu defal ko yonent mu ni xul waxal neen innama ana man kat basharu mbindeef laa mislukum comme yéen dëgg la nag du ngeen ma def morom parce que yuuxa ilayya yàlla daf may wax yu wax yu gee tax du ma seen morom gis nga waaye soxna yonent bi tamit ay nit lañ léeg-léeg yëfi nit daf leen di dikkal toog nañ ba ay jëmmi jamono rek lii dal yenn ci soxna ci suñu biir kër yi dal leen ah kenn ku ci nekk commencé kaas say say mbir dépense kër gi daa tuuti nan ko yokk comme li ko jigéen ñi waxee rek suñu soxna yi bu ma sëy see ba léegi ci mat laa laay tëdd amaguma mat laa defe naa loolu gars yi xam nañ ko de da ngay takk soxna sa waaye nga xëy benn bis rek kër gi tàkk sabab su du nekk leen dul ba ma sëy see ba léegi ci mat laa laay tëdd ah après yow ndeysaan da nga cay jot rek moo tax ngay wax li wala fi daan da ngaa jot ci kaay moo tax ngay wuyoo naam ndax sa maam dund na ba faatu ci pajaas la doon tëdd xam ngeen pajaas mooy saa koy diis yooyu nga xam ne dañ koy jël rokkas ko ay ñax ngay tëdd mu lay cuuj cuujee nga xam ne da ngay yendoo da ngay fanaanee wëlbatiku fa foo wëlbatiku mu jam la nga wëlbatiku mu jam fa ca des sa maam fa daan tëdd nag ndeysaan ba xëy am sa way jur wu jigéen sa way jur wu jigéen jur la yow da nga cee jot tey ak gong mbokk mi ne naa gong dafa naan yooyu olof sax déggu leen ko gong ba moo gën a wokk ndax pajaas sax lu bon bon bon bon ñax ma ca nekk léeg-léeg mën nay baajee ka jóg ka dal gong nag ay weñi ay ay ay ay banti kese la gis nga yu dëgër këng lalu ndës suñu soxna yi koo ci ne lalu ndës mu ni luy loolu te xoolal dañ ci daan tëdd kon yu mel noonu li ñuy dal moo dalal soxna yonent bi alayhi salaam ba ma sëy sëy ba léegi aw ma mat la gis nga néeg bañ ko peintiré ba léegi kenn peintiraatu ko dépense bi daa tuuti bu demee marché commencé di wax ay wax waaw bu doon suñu soxna yi dañ nga dégg ku ne la ba ma sëy sëy ba léegi xam naa ñaateen nga ma fi jëndal daal loolu daa jar a wàññi loolu dafa jar a wàññi daal kay du jariñ leen lu dul buñ la jëndalee bu daggee ñu jëndaat yeneen loolu dong lay jariñ daal moom amul fenn fu sariya jàngale na nga jënd teg jëndaat teg jënd daal daal jëndal bu daggee jëndaatal soo mënta jëndaat dabb daa xel nga jox ko mu sol waaye déedéet sama daal yi waaw ba nga ma gëjee jëndal daal ba nga ma gëjee xottil fekk déedéet yooyu du ay wax yu mel noonu nag moo xewoon kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax it nag ay soxnaam ay jigéen lañ gese Omar ibn al-Khattab mooy nettali ci xadis boo xam ne Abdullah ibn Abbas moo ko nettali ni benn bis damaa soxla woon a laaj aayay jii di wax ni in tatuuba ila allahi faqad sagat qulubukuma in tatuuba ila allahi faqad sagat qulub qulubukuma aaya jooju nekk suratu tahrim nga xam ne ñaari jigéen ci soxna yonent bi ñoo ko tax a wàcc Abdullah ibn Abbas nee na ma bëgg a xam aaya jii ci ñan la wàcc nee na ma bëgg koo laaj Omar ibn al-Khattab waaye kersa daf maa jàpp loolu lu am la bu njëkkoon buumi kersa danaan dox ci diggante mag ya ak ndaw yi comme ni mu doon doxee ci diggante borom xam-xam yi ak ndongo yi xëy ba jooju Omar ibn al-Khattab amoon nee na un an toog naa ko saa su ma jugee pour bëgg koo laaj rek kersa jàpp ma ma noppiwaat loolu day am ndax benn ndongo Malick nee na am na ab su'aal un an ma toog di ko waaj a laaj Malick mënu ma ko koo laaj moo tax xam-xam ba barkeeloon. nee na benn bis ma ànd ak Omar ibn al-Khattab ci yoonu Makka nee na mi ngi dee ba ci yoon wi Omar ibn al-Khattab jàdd ab jàdd bu ndaw ma ne occasion bii daal naa ci profité laaj ko sama sallama laaj ma ñëw ni ko waaw aaya jii di wax in tatuuba ila allah faqad sagat qulubukuma ci kan la wàcc mu ne ko mu loolu daa jara laaj loolu kay ci Aisha ak Hafsa la daal di may nettali xissa ba mu ni ba ma nettalee xissa ba ba noppi nag daal di ma cay tegal lii di bëgg a wax mooy mu ni Omar ibn Xataab ni man de damaa amoon ab dëkkandoo ci waa lansaar yi léegi dëkkandoo bi comme moom dafa am métier ma am métier dama koy wax ni ko léegi yow tey yaay dem yéen doog yéen sa salam information bu fa am aaya bu wàcc xadis bu wax nag ma ko indil su subaa yow demal ci sa liggéey man ma dem jàngi ci yéen sa salam gis ngeen de loolu mooy at tanaaubu fi l ilmi moo tax imaamul buxaari alayhi rahmatullah ci fiq bu xóot bi dafa indi xadis bi ci sahih buxaari mu tuddee ko baabun at tanaaubu fi l ilm bunt bii day wane ni bokk na ci yoon yi ñuy sàkkoo xam-xam mooy soo mënta dem chaque jour nga jokkaloo kenn koo xam ni yaag moom da ngeen di dimbalante soo fàttee mu fàttali la soo teewul mu teelal la soo absenté mu nekkal la fi te loolu ci xeeti sàkkinu xam-xam bi la bokk loolu nag ñun moom daanaka dañ koo xamul sax far ba muy xewi Omar ibn Xattaab nee na waa ji day da tëj liggéeyukaayam dem soo liggéey man ma tëj sama liggéeyukaay dem nee na benn bis rek ma toog ba mu yàgg waa ji daal di ñëw yegg si ci man nee na avant loolu di am. damaa toog joteeg sama soxna ci biir kër gi damaa joteeg sama soxna imraatu zayd mu ni bi ma joteeg moom soxna si di ma wax di ma di ma di ma di ma comme ni jigéen ñi def rek xappa-xappali ba tëg lu ne mu dugg ci Omar ibn al-Khattab nee na bi ma jekkool loos yi ba xoj ko ah nee na ma xoj ko mu daal di siggi mu ne ma gis nga lii ma la wax ngay bañ mu ko ma wax la ko ñu ngi koy wax ku la gën te mënu ci dara jabaru Amar moo wax loolu Amar mu ne ko gis nga lii ma lay wax ba tax ngay xuloo ñi ngi koy wax ku la gën te mënu ci dara Omar ne ko kan lañ koy wax ku ma gën mu ne ko lii ma la wax soxna yonent bi wax nañ ko ay yonentu saa salaam Omar nee na ma tiit nee na bi ma tiitee rek ma daal di départ nee na sol sol xaw ma sax lu ma sol rek génn waaw kenn dem ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk booba ndekete nag coow li am na kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yaa ngi ci jàkka ji. ñenn ñaa ngi toog fee koo gis mi ngi tëstanu dëstanu jaaxle am na koo xam ne ma nga sëgg fële di jooy ndax yëg nañ ni yonent bi saa salaam këram yëngu na ba yonent bi mer na Omar ibn al-Khattab nee na ma yegg si tombeeg Abubakarin yegg si nee na bi ma yeggsee ma daal di sàkku ndigal ni leen demal nee leen yonent saa salaam bëkk néeg bi ni ko demal nee leen yonent saa salaam Omar moo koy seet ak Abubakar waa ji dem ni yonent bi Omar moo lay seet ak Aboubacar yonent bi sëgg rek wuyu wut xale bi ñëw ne ah wax naa ak moom de waaye faale wu ma de Omar nee na ma toog tuuti daal mënatuma koo muñ ma yabalaat xale bi ni ko demal nekk Omar ak Aboubacar ñu ngi ci bunt bi xale bi demaat ni ko yonent bi Aboubacar ak Omar ñu ngi ci bunt bi de yonent bi sëgg rek wuyuwu ko mu dikkaat ne yonent bi de ah wuyuwu leen de ba muy ñetteel bi yoon nag ci la ko yonent bi ni yegsil nee na ma daal di dugg si ma ak Aboubacar nee na bi ma dugg see maa ngi fekk yonent bi a ngi toog toogi ni ku jaaxle nag sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi xisa bi ak am solo ñun ndeysaan ñun daanaka yow du yonent du xam-xam du martaba ci yàlla du dara yow yëggoo sax damitu taabi'oon yi ba yàgg ci saxaaba ya te bëgg nga benn mettit sa soxna du la wax lu la naqari ah sa soxna du la cëppatu sa soxna du la du la du la du la du la moom daal yow daal yaay buur yaay bum mi daal loolu ngeen bëgg ci biir kër yi moo tax suñ sa yi daanaka demul fet parce que am na yu bari yoo xam ne góor war na ko mën a accepter ci biir këram effectivement loolu la soxna Amar wax ndax lii dëgg la jaaduwul nag waaye jigéen noonu la ko suñu borom bindee loolu tamit góor ñi dañ koy accepter yent yàlla bi nee na ñi ngi ko bind ci faar gu dëng boo demee di jubbanteeg doole nga damm ko te soo ko bàyyee mu continuer dëng defal ndànk waaye déedéet ñun da ngay bëgg takk soxna sa way bu jub xocc mel ni sa way ab poto ah du la cëppatu du la wax lu la naqari du du safal xorom sa ceeb du til du tilimal sa yëre du paase lakk yow bu fekkonte ni mbasin bi nga jënd dañ ko paase lakk ko rek day lakk dëkk bi yooyu fekk déedéet àddina du noonu dafa am yoo xam moom dund gi ñoo ànd yii masail nag mbokk yi masail la yoo xam bu ngeen seetloo duruus yi ci xayaat saxaaba yi ak tafsir yi saa bu ma ceeg si dama ciy insister xam ngeen lu ko waral mooy problème bi ñu am ñun moom la àddina bi yëpp am mooy problème mu sëy gis nga tey boo demee ci tribunal defe naa gars yi def suivre information yi xam nañ ci dara tribunal tey boo ci demee fi mu nekk nii quatre vingt quinze pour cent ci ay problème jëkkër ja jabar ja dóor na ko wàcc na ko ña ngay xëccoo xale ya problème mu sëy kese lay doon te mbokk yi loolu lépp alxuraan réglé na ko dama ne xëccoom xale sax alxuraan réglé na ko jigéen ak jëkkër ak jabar teqalikoo ñuy xëccoo doom ji sax am na ci kanam yoon saa salaam ba yonent bi réglé ko te masala moom bu ngeen fàttali ko waxoon naa ko suuratu nuur kon yu mel noonu war nañ bu ñuy jàng alquran ñu koy nafaraat di bañ ci yàkkamti def ndànk xam ni problème société bi lépp alquran réglé na ko Omar nee na bi ma yegsee fekk soxna yonent bi ñu ngi wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi toog rek booba doomi Omar mi ngi fi muy Hafsa doomi Aboubacar mi ngi fi muy Aïcha Omar nee na ni ma ñëwee fekk yonent bi kanam gi ñëkk mu changé mel ni ku jaaxle affaire bi neexuma mooy saxaaba yi mosuñu woon a bëgg di gis yonent bi ci kanam gu mel noonu Omar nee na ma ne xaaral naa def benn geste boo xamante ni danaa ko reetaan loo boog ndax affaire bi dañ Omar ibn al-Khattab ni waaye yonent bi nan la man de tey dama xëy sa waay sama soxna naama ay yu kenn xamul waaye gis nga bi ma yóotoo loos bi ma ne ko tar bi mu waxee loolu rek yonent bi daal di muuñ sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi muuñee daal ni ko ah tar jooja de man yégguma ci waaye lala tax a def ni tar man moom la soxna yi wëree nii nii nii loolu rek la ci jublu woon na yonent bi muuñ rek alayhi salaam baa mu reetaan noonu la Omar ibn al-Khattab jub dem ci Hafsa ni ko waaw yow sama soxna li mu ma wax dëgg la nee na yéen da ngeen di joxar bi ay kàddu yonent bi naa ko yokkal dépense bi di ko indil problème biir kër Hafsa ni ko waaw wax nga dëgg Aboubacar jóg dem ci Aïcha ni ko waaw yéen dégg naa da ngeen di sonal yéen sa salaam ci mbirum dépense beeg mbirum poñeti àddina bi Aïcha ni ko waaw Omar daal di génn faxar ñett fàqu yar fële Aboubacar génn fàqu yar fële kenn ku ci nekk jëm ci sa doom am nañ ci sañ-sañ parce que ñooy seeni baay waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay réglé masala bi ñoom seen problème nekkatul kii mooy sama doom kii déedéet seen problème mooy yonent bi ci boppam lan bëggul mu am lu ko metti yonent bi daal di dox diggante Abubakar ak Aïcha dox ci diggante Omar ak Hafsa daal leen tere ñu leen toog leen du lii moo tax ma woolu leen xam ngeen yéen a ngi fàttali ko sab Abubakar ba ah keroog ba nga xamante ni Aïcha jotee na ak yonent bi Abubakar ñëw yam ca ah ñëw di àtte allahu akbar aboubacar fàqu yar jëm ci aïcha aïcha daw làqatu ci kam doon joteel mu yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu kenn mosu koo gis loolu mooy yërmande mooy maa ngi joteeg yow waaye xam naa ne góor gënu la loolu seede la loolu aïcha da koo seede te waxut ndax kim doon joteel bu fekkonte ni jote ba yegg na fenn fa yaakaar naa ni doo joteeg nit ba noppi ñu lay kii ngay dem di làqatuwaat ci moom yéen saa salaam daal ni aboubacar fàqu bi yar ñëw di dóor taxut ma woo ma woo la bàyyil jàmbur te Aïcha mi ngi làqatu ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu lépp ci jikko yu rafet yi ko yàlla taggee la wér na nag wa innaka la ala xuluqin azim noonu yonente bi alayhi salatu wasalaam ca la mere woon ay soxnaam am lu ko metti toog ci jàkka ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent xam ngeen jàkka ji néegam nag nii la meloon mooy néeg Aïcha ma nga ne leen ñenn ci néeg soxna yi xam ngeen yéen sa salam amul woon kër comme ñun comme niñ ko foogee maanaam kër goo xam da nga naan mi ngi nii 15 sur 10 la wala 24 sur nangam am buntu am yonent bi amul woon loolu xujuraat la am ay xujuraat xujuratu Aïcha xujuratu Hafsa xujuratu Umu Salama ay néegi ñax lañ amoon yu wër jàkka ji moo tax mu ni inna alladina yunaaduunaka waxul min waraa il bayti min waraa il xujuraat la wax noonu yéen sa salam ñëw ci jàkka ji am fa 29 jours gis nga 29 jours yooyu moo tax gis nga jigéen boo koy yar moytul muy xam li nga bañ daa bokk ci yi ñuy naqarelee góor mooy xam li nga bañ boo mënee fexe ba sa soxna yi nga gën a bañ du ko xam def ko donte nag lu jafe la gis nga soxna yonent bi saa salaam rawatina Aïcha nga xam moo ci gënoon nekk gone parce que miinoon na ko lool bi yonent bi amee vingt-neuf jours daal di ñibbisi ci kër gi xam nga ne ko Aïcha njëkk a wax yow ndekete na moon nga ñu kat yow yaa nga yàkkamtiwaay weer nga waxoon nga fay am te yaa ngi nii vingt-neuf jours nga am nga ñibbisi xoolal xoolal loolu bu doon góor gu gaaw a ñëg ba mel ni man buñ la ko waxee da ngay génnaat da ngay génnaat demaat amaat 30 jours te su boobaa yaa fa yëg rek waaye gis nga yu mel noonu ñu wax ko yonent mu accepté ko dugg maa ngi yaakaar damaa joxe message sama bopp rek waaye sama gars yi yëpp koo ko ci waxoon mu génnaat yaa waxoon 30 jours yaa ngi ni 29 jours da nga yàkkam da nga ñëw nam mu kese loolu boo ko waxee góor day ñëg yéen saa salaam ñëgul parce que loolu du ay melokaanam lu mu ci teg mu daal ni ko yow yaa xamut dara. weer day nekk fan weer di nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent weer wii ñu nekk ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent yow xamoo dara day daal di noppi kon gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di dugg si ci biir këram aaya jii daal di wàcc na ñu tuddee ko aayatu taxyir mooy nag sunu borom daal di intervenir foofu tamit beneen jàngat mi ngi fi mooy mbokk yi gis nga sunu borom subhanahu wa taala ñun dañoo yaakaar ne lu këtt ni jonn rek suñu borom daal di waaj régler affaire bi mu jeex ñun dañoo bëgg suñu amee ay problème jeudi ci ngoon bala ngaa ñëw vendredi ci ngoon suñu borom régler la ko mu jeex yaay kan déedéet jullit du noonu faw suñu borom nee na wala nablu fala nabluwannakum wala nabluwannakum bi shay'in min alxawf waljuu wala nabluwannakum xatta naalama almujahidina minkum yi demee noonu faw nattu am ñu càmbaraat la xool ba xam sa ngëm mi ngi taxaw fa mu taxawoon wala déet yéen sa salam ñaata yoon la am ay problème alquran mën a wàcc régler ko léegi léegi léegi li taf taf mu wax saxaaba yi gëm waaye déedéet suñu borom bàyyi na ko mu dem ci jàkka ja ñaar fukki fan ak juróom-ñeent suñu borom bàyyi na ko bàyyi soxnaam wër ko sa way di ko saax-saaxee ba saxaaba yi ñii di ca jooy ñii di ca jaaxle alquran doog a wàcc te moo ne mënoon naa wàcc ca saasa régler ko te gisoon ngeen tuumal Aïcha gi ca suratu Nuur suñu borom daal di wàcc aaya ji mooy tàmbalee tey muy aayatu taxyir suñu borom di tànnloo yonent bi alayhi salaam ay soxnaam mu ñu leen in kuntunna su fekkee da ngeen a nekk turidna alxayaata dunya di bëgg dunduk addina gi wa zinataha ak taar taar yi fa taalayna kaay leen umattiakunna ma waajal leen wa usarrixkunna ma yeewi leen saraxan jamilan ku nekk dem sa kër bàyyi jërul xuloo jërul xeex te yéen sa salam nii lay def de bokkut ak ñun de amul xuloog sa soxna sa waay di ko fàttali yu bon yéen ndeysaan di wax ay wax yoo xam ne de waxi ceddo la suñu borom mu ne wala tansawul fadla baynakum ngëneel yan la may ak ya nga doon labatee ah ànd bu njëkk ba buñ ko fàtte mbokk yi alquran wallahi alquran téere bi mën a yarale mbokk yi war nañ ko di jàng de léeg-léeg góor dem ba joteeg soxnaam génn jikko yu ñaaw ju sibu ju salte ba ma la yoree ba léegi mënumaa am dara ba ma la yoree ba léegi laa yàqule liggéey subhanallah xollil yi wax yu bon nan la ko góor di génnee te ku gëm yàlla sama famille yëpp nee nañ ma yaa ma yaa ma yaa ma um lii gis nga gor gor gor su nekk tuuma buy dee tuumaa koy rey olof yi dañuy wax ne gor buy dee tuuma moo koy rey yu mel nii ay góor ñu ngi koy wax léeg-léeg sax nag léeg-léeg sax nag góor yegg ci ba wax soxnaam loo xam ni moom fii nu toog ci jàkka yàlla ji rus nañ ko sax a wax moom loolu daa ëpp a génn sax toog di ko nettaliwaat rek lu ëpp la te ñu ngi koy wax yooyu kenn du ko def maanaam nit ki bu demee ba ba ba jafe-jafe am. wa aashiruhunna bil maaruf nekkal ak soxna yi nekkin wu rafet fa in karihtumuhunna gis nga bis boo dee ba soxna si neexatu la ah bala ngaa wàcc teel de fa asa an takrahu shay'an amaan na nga bañ dara naa ko wàcc wa yaj'al allahu fihi xayran kathira léeg-léeg nga yor soxna nekk ak moom au lieu que nga fonk ko fonkoo ko sàgganee ko sa waay mu wàcc ko day mel ni nag sax moom yàlla foofu la nar a baaxalee addinaam nag gis nga de jigéen tamit léeg-léeg mu nekk ak borom këram au lieu que mu toog muñ déedéet du ko def léegi jigéen ji war naa yëg ni gis nga bu góorgóorloo jóge fa meneen moroom mooy ñëw toog fa moo tax borom bi subhanahu wa taala bëgg ku góor ki mu rafetal ku jigéen ki mu rafetal suñu borom mu ne wala tansawul fadla baynakum kadalika léeg-léeg nga dégg jigéen ni mu amee ci góor ñi noonu la amee ci jigéen ñi léeg-léeg nga dégg jigéen wax borom këram wax ju bon ay tuuma yu yu subhanallah gis nga te te musiba ji nag mooy jigéen mën naa ciqalikoog soxnaam borom këram waxal ko ay wax yoo xam ni loolu day def jeexintal ci ay doomam ba ay doomam màgg bañ ko ni xam ngeen ni sëy en général ci fii société bi ñuy dund bu bu tasee rek lépp mboccaara ci wala doomi jigéen dañuy féeteeg seen yaay li ëpp li ëpp laay wax li ñuy gis waxuma di waxuma diine li ñuy wax ci diine waaye loolu bu amee da ngay gis ku jigéen ki au lieu que mu def ay jéego pour fexe gone yi bëgg seen papa déedéet seen papa ku bon la seen papa moo ma defoon lii seen papa yu demee noonu gis nga loolu dafay waral xale bi di màggale een xam ngeen xale day màgg kawaram di sax ay ween di sax een bi mu am di màgg tamit nag xale bi day màgg mook baayam duñ mën a jaarab taal te fekk na au fond boo ko xoolee yaayam a ko liggéey yooyu yëpp nag nañu xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom xam na ko moo tax suñu borom tànn looy soxna yéen sa salam ni leen su ngeen dee bëgg dund ak àddina gii ak li nga xamante ni mooy poñat mi fa taalayna kaay leen umattiakunna ma waajal leen wa usarrixkunna ma yeewi leen saraaxan jamilan yeewi bu rafet waaye wa in kuntunna su fekkee da ngeen a nekk turidna allaha di bëgg yàlla wa daar al axirata ak kër ak alaxira ga étage ah wa rasulahu ak ab yonenteem wa daar al axira ak kër ak alaxira ga étage yu kawe ya ala al araiki yanzuruun ah wa namaariqu masfuufa wa zarabiyu mabsuuta su fekkee yooyu xéewal ngeen di dégg ah bëgg ngeen ko sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa inna allaha sa borom yàlla kat aadda waajal na lil muhsinaati ñeel ñiy rafetal minkum ci yéen ajran aziman fay gu rëy fay gu duun fay goo xamante ni gu màgg lay doon léegi bi aaya ji wàccee mooy aayatu taxyir yonent bi alayhi salatu wasalam dafa woo ay soxnaam ba ñu ñëw mu commencé ci Aïcha Aïcha nee na ci man la tàmbalee amaana la ala dafa fekk ci moom la aaya woon mu ne ko sunu borom wàcce na ci man ab aaya bu leen di tànn loo toog ci kër gi ak génn dem seen kër yàlla nee na su fekkente ni poñetam àddina góor gu yor comme li jigéen ñi wër góor gu yor góor goo xamante ne da ngaa yor ba mu jeex waaye foofu maa ngi bàyyi loo xel jigéen ñi gis nga jigéen a ngi joo xam ni borom këram yor na nam war a yoree waaye sëyam neexut foo ko gis mi ngi misère wow koŋ nit ñi naan kii lu ko dal fekk dara dalu ko dafa amul xolu borom këram te looloo dàq ci sëy jigéen a ngi nii borom këram amut dara léeg-léeg ndaw sëy tucci tucci lu ne mu dugg ci ngir jaayaatu ngir mën a joxe dépense nga yërëm ko lool fi zahir mu neex la lool fil batin parce que am na xolu borom këram masail yi jigéen ñi war nañ koo xam ki am xolu borom këram mooy koo xam ni yow malgré que sa borom kër lu mu ñàkk-ñàkk lu ak dund gi jafe-jafe lu mu ñàkk-ñàkk métier léeg-léeg dépense bi du mat fonk na la yëg na la léeg-léeg ngay weer sax mu weerle la léeg-léeg nga jëm fenn mu dimbali la ah di di la wax ay ay mbiram maanaam daal nga yëg ni yow mii kat kii fonk na la dëgg la dafa amut nag waaye fonk na la gis nga nag kaay ma xamal la ñaar waa penkook waa sowwoo ci bokk yem na lii moom muttafaqun alayhi bayna nisa jigéen ñépp dëppoo nañ ci ni xanaa jigéen ñu nite ñi laa wax ba waxuma jigéen ñu dofe ñi waaye jigéen ñu nite ñépp dëppoo nañ ci ni boo leen tànnaloo jëkkër ju yor ak jëkkër joo am xolam ji nga am xolam la ñuy jël parce que bari waana tey ñooy gis seen sëy dara neexu ci dara neexu ci malgré que yépp mat na ñi ngi xëy di joxe dépasse loo bëgg yaa ngi sol rafle woo xiifoo maroo waaye daal yaa quelque chose mbir bi demewut na mu war a demee waaye koo xam ni fexe nga ba am xolam ngeen di diisoo daraam du la ump sa dara du la ump kenn ku ci nekk mën ngaa giñ sa morom denc na ñaar dërëm wala ñetti dërëm parce que kenn du umpale sa morom loolu nag dañ koy liggéeyal de dañ koy liggéeyal de léeg-léeg nag jigéen dana ko liggéey ba am ko léeg-léeg jigéen di ko liggéey borom këram du ko ci dimbali it nag loolu bàyyi leen ko xel waaye léeg-léeg jigéen bëgg koo liggéey te fekk liggéey ko wees na. ndax nit ki su fekkee dafa jël ay fetti mettital jam ko ci xolu borom këram ba ba jam-jam ya def ci ay pax njekki àddina yépp boo ko indi woon di ko defal même bu bëggoon a bég sax du mën a bég fa inni raaytu alxubba fi lqalbi wal ada ida ijtamaa lam yalbas alxubba yazhabu waa ji nee na soxna si xudi alafwa minni tastadimi mawaddati wala tantuqi fi thawrati xiina agdibu wala tanqurini naqrati duffi marratan fa innaki la tadrina kayfa almugayabu wala tukthiri alshakwa fatadhaba bilquwa wa yabaka qalbi walqulubu tuqallibu fa inni raaytu alxubba fi alqalbi walada ida ijtamaca lam yalbas alxubba yazhab dama jéggal de soo gisee erreur ci man jéggal ma su ma gisee erreur ci yow ma jéggal la su ko defee cofeel gi ma la bëgg dana mën a sax saa boo yëgee ni mer naa jëfuur di wax tajal sa gémmiñ góor lim gën a bañ nag mooy muy wax soxnaam di tontu am na jigéen ñoo xam dañoo wow làmmiñ lool ñoom duñ la dencal benn baat moo tax it yàq sab say xëy toog rek boo dajee góor gu am fayda moom yàq sab say rek jigéen day wanaasu baat kii wax ak yow sa kilifa la kooku yàlla moo ko def bu sujjóot daganoon kii nga war a sujjóotal yow fomp ay ay ay ay tànkam ci say lex taxul nga faj ko fay ko àqam bu la soxla woon ca kaw gileem sax da nga ko war a nangul ndax yàlla ak yonent bi ñoo yoonal loolu kii ku màgg nag sa kanam bu yeboo sax nga ni benn at la la magee loolu kontul de bu yeboo sax magee la benn at loolu kontul xam nga li kontu mooy kilifa la te yàllaa ko ko def bañal nga ko kilifteefam mooy nangu wali te yàlla dogal subhanahu wa taala bul bari ay jàmbat wala tuksiri shakwa bul bari jàmbat fa tadhaba bil quwa man aw ma lii aw ma lee waaw sama borom yi nangam gis nga loolu dafay dagg xolu góor parce que day yëg ni kon yow ñeneen ñi li ñuy defal seeni soxna ngay gis waaye gisoo li ma lay defal te effectivement góor am na ci droit na déedéet jigéen na wax ay soxlaam te mu yam te mu bàyyi bu mu comparé kenn mu ne bul bari ay jàmbat kon da ngay jeexal sama doole sama xol da lay bañ te xol daa gaaw wëlbatiku bul ma tiim di ma kaŋetloo comme ni borom tëggkat bi di kaŋetloo tabala ji ndax fa ma yendoo liggéey wala fa ma yendoo xëy la ma fa indaale ci coono xamoo ko gis nga góor mën naa wàcc xoolal lii dong laa wax romb rek romb nga xam ni xori woo ko cosoo ko da nga kaa laal rek mu sippi ko ci sa kaw nga yaakaar fekk defoo ko dara daa amul fu mu ko sippi moo tax jigéen ji gën a ñàkk xel mooy ki nga xam ne du fexe di xam borom këram bis bu nekk jigéen june jigéen june ju sëy saa su xëyee war naa xam kii ma dajal kan la saa su sa borom kër wàccee war ngaa xam kii ban façon nit la tey dafa àndaale coono am na loo war a mel dafa àndaale mettit am na loo war a mel xoolal xoolal góor goo xam da ngaa liggéey ba weer dee sa waay nga dem ba la cinq dem di fayeeku ñu ñu ne la xaalis amul tey nga demaat suba ñu ne la amul dem leen bala quinze nga dem bala quinze nga ñëw ñu ne la xaalis amul yow bi ngay ñibbi si paas sax amoo ko ah nga ñëw ñu naan la gaz bi jeex naag ci indi na fi facture courant da ngay wax rek mu sa sambar ci sa kaw fekk defoo ko dara ahan kay def nga dara sax nag parce que da ngaa amul xikma ndax boo amoon xikma war ngaa xam kii ñëw kan la moo tax yu bare bare di am amaa jigéen ji ñor nag mooy ki xam kii ñëw kan la tey kii kat dafa ñëw indaale mettit ak yorut ak fayuñ ko salaire am ah amul problème xaaral soo ma dem sama kër bàjjen wut lu ma fa lijjanti ah yow xam nga ni yow fii ba ngoon loo wax jàmm lay doon loo wax jàmm lay doon ci kanamam yu mel noonu nag tey ndeysaan nun gone yi dañoo ñàkk bàjjan bu ñuy waxal mag mu ñuy waxal njàngalee lislaam yi daanaka kenn ku ci nekk la nga bëgg rek sa kilifa bopp ngay doon te ku nekk sa kilifa bopp kàmb ga lay suul yaa koy gas moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxnaam yi yàlla tàmbalee ci ñoom jàngale bu mel nii kaay leen usarrix kunna wa usarrix wattia kunna waajal leen wa usarrix kunna saraaxan jamila su dee àddina ngeen bëgg ak daaral axira yàlla waajal na leen ay tiyaaba yu bari tànn leen koo xamante ni àddinaa ko gënal wala jëkkër joo xam ne ju yor la ñëwal tey tey tey tey doo fi yenn añ moom jërul ñu koy taal yonent bi wax ak Aïcha waaye yant bi mu ni Aïcha gone nga xalaat nag saa bu dikkee jëm ci yow bala ngaa joxe sa réaction demal diisoog sa baay Aïcha nee na xam na ni yonent bi xam na ni même bu ma naroon a jéng jëm ci àddina mbir bu yeggee ci sama baay yàqu na foofu tamit ñor ko góor da ciy war a feeñ ñor ko góor da ciy war a feeñ gis nga am na décision yoo xam ni nit ki faw bu mu ko fajal boppam mën ngaa xëy yeewu sa borom kër ni la ni la nga wax ak moom rek soxna si ne la mayoo baat taf taf rek mu ne la mayoo baat góor ñi nag pour ñoom am fulla ak am fayda mooy mayoo baat may naa la ko mu jeex fekk mbir mi du loolu maanaam gis nga jëkkër diggante jëkkër ak jabar amante fulla amul foofu maanaam gis nga fulla jigéen da koy jaay keneen ku dul jëkkëram fayda jëkkër da koy jaay keneen ku dul soxnaam moo tax léeg-léeg mbir dana am tekkaaral ah góor ga nee na ma bu dee soxna si ne may ma sama baat nee ma nekk dégg naa ko nekk dégg naa ko gis nga jigéen fukki may ma sama baat yoo dégg juróom-ñeent yépp ñëg a ko wax ak waxtu wa boo koy may tuuti mu cay génn gis nga boo demaatee ba mu yàgg mun la may ma sama baat ne ko dégg naa li nga wax gis nga bu ko ñetteelee ne ko bañ ma lay may mayewu ma la woon ci mbedd demal ci sa kilifa ya ma la mayoon nga ànd ak ñoom buñ ñëwee ci sa kanam ma may la baat sëy ba du tas du tas de benn du dem mbaa bu demee ñoom duñ nangu sëy bi tas bu doon ñun na da ngay jàpp am fulla may ma sax may naa la mu jeex waay di jaay fulla fekk yooyu amul fulla maanaam gis nga fulla nit ki da koy jaay keneen ku dul soxnaam jigéen bu koy jaay na ko jaay ku dul jëkkëram parce que diggante bu fulla ak fayda fa xajut moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tànnaloo soxna yi Aïcha nee na man ma ni lii du ci jar may dem di tànnaloo sama baay man kay inni axtaaru llaha wa rasula allahu akbar wa daar al axira man de tuub naa dellu ci yàlla tànn naa yàlla ak ab yonenteem wa daar al axira kooku benn la waaye Aïcha dafa def foofu yëfi jigéen nag bi mu waxee loolu pare mu ne ko ñeneen ñi nag seen yoon nekkul ci lu ma tànn man ku la laaj lu ma tànn ne ko sa yoon newu ci xam nga loolu mooy jigéen daal toujours ay yëfam daal moom daal nay nëbbu rek yonent bi ne ko yee loolu man duma ci dugg duma dem kenn naa ko Aïcha lii la wax waaye ku ma laaj loo wax wax lu am duma ci fekk de ku ma laaj loo wax ma nettali ko yonent bi ñëw wër soxna yi nekkum dugg rek génnaat nekkum dugg génn ba soxna yépp daj ñoom ñépp ci dëppoo ci ne naxtaaru llaha wa rasulahu wa daar al axira tànn nañ yàlla akub yonenteem ak ad daar al axira kon sunu borom dig leen tiyaaba yu bëri moo tax الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي bi muy tafsir aaya ji dafa am ay njàngale yu am solo yoo xam ne génn na ko ci ayatu taxyir mu ni wa fi hada taxyir fawaidun adidatun jiddan wa minha mu ni tànnloo gi yàlla doon tànnloo soxna yonent bi alayhi salatu salaam ay njariñ yu bare bari dajaloo nañ ci te bokk na ci yii may bëgg a lim donte du yépp sax tuddul lépp mooy salaamatuhu sallallahu alayhi wa sallam bi hada taxyir min tabiati xuquqi zawjat mu ni lii day setal deru yonent bi ci wane ni man gàdduluma kenn ci yéen àq wax naa ne lu leer man tabaxi bati maa yëkkati état ak denc ay carte grise indiwuma fi su ngeen bëggee ngeen toog ci lii ah cere yann jeeg cere ngurbaan jeeg dëxin jeeg mbaxal mi lii moo fi am su ngeen bëggee baax na bu ngeen bëggul ngeen dem kon loolu su leen ko yonent bi waxee ñu nangoo toog ça veut dire que kon yonent bi set na ci yoreetul benn soxna benn àq ñaareel mu ni tanzihuhu amma law kaana fihinna man tuathiru dunya ala allahi wa rasuli lii day wan ni kon kër yonent bi moo gën a set ci kër yi ndax tey may nañ la possibilité tànn loola nga tànn yàlla akub yonenteem ak poñati àddina kenn forcé wu la yow nga tànn yàlla akub yonenteem la muy wane ni mooy ak mbaax mi ngi ci yow kon mooy waa kër yonent bi ñëpp set nañu alayhim salaatu wa alayhi salaatu wa salaam wa minha salaamatu zawjaati sallallahu alayhi wa sallam an il ithmi wa taarrudi li saxati allahi subhanahu wa taala ba léegi da lay wan ni soxna yonent bi kat am nañ yaakaar ci rafet njott ci ñoom ni fa merum yàlla war a tàbbee ci seen kaw ñoom ñoo ko teggil seen bopp ci ndingal ndimbalam suñu borom ndax yàlla kat xam ngeen ni ku bàyyi kër yonent bi ban góor ngay seetiwaat ci kaw suuf yow faf kenn dala dul mën a takkati sax faf kon yu mel noonu seetal na soxna yonent bi alayhi salatu wasalaam ci seen der ca tàbbi ca meram sunu borom wa minha idhaaru rifatihinna wa uluwi darajatihinna ba léegi dafay wane ni soxna yonent bi kat ñu am daraja yu kawe lañu waaye ñu màgg lañ fa yàlla subhanahu wa taala ndax tànnal adina wa daaral axira nga ne tànn naa daaral axira sunu borom ni fa inna allaha aadda lil muxsinaati joxañ leen ni min kunna kon am nañ fa ay place yu rëy beneen bi ci des mu ni istiadaaduhunna bi hada al ixtiyaar lil amri al muxtaari lil wusuli ila xiyaari darajaati jannati naim dafa mel ni kon maanaam examen la bu ñu doon def ci àddina ku ci réussir da ngay am place bu kawe ci àllaaxira parce que yàlla moo ko digee mu ni ñoom bi ñu defee examen bi ñoom ñëpp dañoo réussir moo tax am nañ yaakaar ñoom ñëpp te insha allahu loolu mooy am mooy ci soxna yonent bi la ñuy bokk ci aljanna comme ni ko yonent bi waxee alayhi salaatu wasalaam bokk na ci mooy wa minha duhuru almunasabati baynahu wa baynahunna fa innahu akmal wa arada allahu an takuna nisaa'uhu kaamilaat dafa mel ni kon comparaison bi suñu borom bëgg a def kon sotti na comme yonent bi mooy góor gi gën a mat ci kaw suuf laa shakka ni kon soxnaam daa war a gën a mat ci jigéen ñi ci des mu ne kon suñu borom day def benn test ci soxna yonent bi pour test boobu ñoom buñ ci génnee dañuy nekk ñi gën a mat ci jigéen ñi pour ñu méngoog góor gi gën a mat ci góor ñi muy sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des wax na yu bare bare bokk na ci mooy day wane ne kon ñii ñu doylu lañ loolu njuumte la woon rek te njuumte mën naa dal ku nekk wax na ci ay fawaid yu bare bare maa ko tënkee noonu rek ala kullin kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni képp koo xamante ni maanaam waaj na ci yéen àddina yitteel ko kër ak poñet ba na dem kër baayam ma yeewi ko waajal ko ku àllaaxira yitteel sunu borom waajal na ko ay tiyaaba yu rëy sunu borom mooy yaa nisaa annabi eey yéen soxna yonent bi may yati ku andi min kunna ci yéen bi faaxishatin mubayyina ci ñaawteef gu gu leer ñaawteef gu leer gii nag bul ko déggee comme ni ni ay njaaloo ay nangam déedéet dafa bokk ci maratibul anbiya mooy borom bi day ñoŋeel seeni soxna ci njaaloo ak yëkku nuru loolu moom xamaale ko am na melokaan yoo xam ni yàlla daf koo teggil ay yonentu leen dal silmaxa ngaana comme liñ naan ayuba daa feebaroon ba ay sax di génn loolu loolu weddi gi nga koy njëkk a weddi rek mooy yooyu dafa àndut ak xormay anbiya yàlla am na yoo xam du bàyyi ab yonent du ko dal yonent du pat yonent du laggi yonent du muuma yii nga xam ne ay xeeti ay bi yu mel nii la du lal ab yonent wa kadalika soxnaam nag gis nga soxna yonent yàlla luut soxna yonent yàlla luut nekkul da doon bokk ci caay-caay ga de déedéet dafa weddi woon luupa alayhi salaam daf koo weddi woon waaye caay-caay ga musu caa bokk ala asaxi aqwalil ulama musu caa bokk parce que soxna bi yonent yàlla moo koy garanti bu yooyu du ca bokk moom dëgg la nag mën naa mën naa bañ a fiir mën naa bañ a bañ a bañ a ànd ak luut kee mën naa bañ a ànd ak noox waaye nag duñu ànd ci caay-caay ga moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni may yati min kunna ku andi ci yéen bi faaxishatin mubayyina ci lu bon loo xam ne lu leer la ibni kathir mu ni wa hiya nusuudu wa suul xuluq yonent bi wax la nga di ko daraaye comme ni ñu koy waxee wala yonent bi waxee yow ngay cippat mooy nusuus wala naan damay fay ak damay dem sama kër baay ah wa suul xuluq wala ñaaw jikko ñaaw jikko mooy rafetoo ay jikko yii mooy melokaan yi nga xam ni sunu borom subhanahu wa taala mu ni su fekkee dal na ko jigéen ki loolu la tuddee man yati minkunna bi fahishatin bayyina sunu borom mu ni su boobaa su amee kat yudaafu laha al adab dinañ ko fulal li nga xam ne mooy mbugal mi daafayni ñaari yoon dina fuddu ndiggam ñaari yoon allahu akbar moo tax Cheikh Nasir Saadi mu ni fa sunu borom sukkandiku ba man faa fay soxna yonent yu tiyaaba yu rëy ba ku def benn mu dubleel la ko laa shakka ni kon ku def safaan dafay fudd sa ndigg lu tolloog ñaari yoon lu tax parce que loolu ngay mérito ndax mbokk yi xam ngeen ni am na njuumte yoo xam ni simple lu ci doomu aadama yëpp loolu defe naa ñun ñëpp xam nañ ko am na yoo xam ni benn sàmba boy ci koñ mën na ko def mu simple dara du ko ci fekk misaal bi may joxe rek tey ki nga xamante ni moom lañ gën a yaakaar ni moo nekk nitu yàlla ci koñ bi wala wala wala wala mooy borom xam-xam ba wala mooy nangam ñu ne moom moo njaaloo dooma diw loolu defe nga dina yem ak waa ji doon sol jiin fii di lëppax lëppax yi moo njaalo loolu du yem parce que nit ki jëf yi muy jëf dafay fekki martabaam kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa sukka ne ay soxnaam suñu defee lu ñaaw lu ñaaw loolu dafay gën a rëy su fekkoon benn personne ci nit ñi moo ko def mi ngi mel ni ñu ne la kenn ci saxaaba yi rek ak kenn ci ñun laa sukka duñ mën a yem moo tax suñu borom mu ni képp ku andi ci yéen bi faaxishatin mubayyina lu bon ñaaw jikko te mu leer yudaafu laha yudaaf laha al adab sunu borom dana ko dubleen mbugal mi ful ko doafay ni ñaari yoon laa koy mbugal wa kaana nekk na loolu dalika loolu ala allahi fa yàlla yasiran lu ko yomb benn sentiment du ko ci jàpp nag benn sentiment du jàpp sunu borom ci ni képp ci soxna yonent bi koo xam ne dafa def lu ëpp ñaaw jikko ak loo xam ne yàlla da koy tere ko yonenteem soxna yonent bi jiitu ci sunu borom mu ni dinaa ko fulal mbugal mi ñaari yoon te loolu lu yomb sunu borom la subhanahu wa taala mu addin alhamdulilah wa salatu wasalaam ala rasulillah kon borom bi subhanahu wa taala dig ne soxna yéen saa sallam tiyaaba yu rëy su fekkente ni ñoom kat matal nañ la nga xam ne moom la leen suñu borom digal mooy topp yàlla ak ab yonenteem gënale ko ci dund ak addina gi waaye su fekkee kenn ci ñoom dafa def safaan kat suñu borom su koy duma du ko duma duma gu yam moo tax xam ngeen ni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam seeni mbir du yaman ci suñu borom ak mbir yi ñi nga xamante ni ñooy simple doomu aadama yi suñu borom subhanahu wa taala mu ni wa man yaqnut képp ku nangoo xommatu min kunna ci yéen lillahi ñeel yàlla kese ommatul yàlla wa rasulihi ak ab yonenteem wa taamal saalihan nangoo jëf-jëf yu baax nutiha dinañ ko jox ajraha ab yoolam marratayni ñaari yoon gis nga aaya yi mbokk yi bokk na ci li tax mu am solo mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ñun maanaam tey nit ak soxnaam ci biir kër gi problème bu amee dañuy dellu ci yàllaa ko yonenteem léegi xam nga tey nit bu amoon problème ak soxnaam ab borom xam-xam ñëw di régler mën na leen a waar fàttali leen yàlla ak ab yonenteem léegi ñoom ñaari côté yépp sama ak taa lañu war a def dégg parce que ki leen di àtte mooy yàllaa ko yonenteem waaye léegi soxna yonent saa salaam moom bu jàddee ku koy jubbanti dëgg la yonent bi ab yonent la waaye gis nga jigéen ak jëkkëram jigéen ak jëkkëram dong la mën a nekk keese mënta passé loolu am na foo xam ne bu ñu fa tolloo nit ak doomu aadama day feeñ maanaam jigéen ak borom këram am na yoo xam ni borom bi moo koy waxal boppam muy ay metti dal ci kaw soxna yonente bi alayhi salatu salaam ngir ñu xam ne lii kat nekkatul léegi am muhammad te it effectivement loolu mooy am dafa am foo xam ne bu fa taxawee muhammad ibni abdillah lay doon mooy bu nekkee ci biir kër gi nekk nit comme ñépp di def li nit ñépp di def di di ree di mer di kontaan di jëflant def jëfi nit yépp waaye bu taxawoon ci kaw jàngalewukaay ba wala ci kaw minbar day nekk muhammad rasulullah loolu nag dinaa dégg léeg-léeg gars yi di ko wax ngir na mu ci caay-caay nag maanaam loolu farq boobu dinaa ci nangu dinaa ko dinaa ci ànd jubluwaay bi mooy ngir ñu xam ne bu def yëfi nit dote da koy def waaye ñi koy wax jubluwuñ ci loolu de loolu na ngeen ko bàyyi xel léeg-léeg nga dégg ñu naan kii mooy muhammad ibn abdullah kii mooy muhammad rasulullah fekk ak caay-caay gu mag lañ namm ca gannaaw loolu tamit nañ koy bàyyi xel kon yonent bi alayhi salatu salaam sunu borom bu ne ay soxnaam wa may yàqun ku nangoo xommatu lillahi ñeel yàlla wa rasuli ak ab yonenteem wa taamal saalihan mu nangoo jëf-jëf ju baax nutiha dañ koy jox ajraha ab yoolam marratayni ñaari yoon comme ni buñ koy mbugal nañ koy dublee ñaari yoon wa aatadna laha dinañ ko waajalal rizqan aw xéwal yoo xam ni wërsëg woo xam ni kariman gu tedd la fa sunu borom dëgg la sunu borom ni mu leen waajalee bu fekkee kenn ca ñoom dafa defub safaan walhamdulillah amut loolu ab tëkku la woon te it nag saa bu ñuy jàng alquran aay yi daf leen doon tiital nag aay yu mel nii ak aay yu mel yi ci nar a topp wa qarna fi buyutikunna dañuy wax ni léeg-léeg Aïcha bu ko musaana jàng dafay jooy ba sërxët lu tax ndax aay nag dafa metti nag joxañ bu metti la parce que dafa tiitlu nag dundu gaa ñi xamoo kañ lay jeex te yow boo jàddee yoon ni lay dumaa mooy gën a metti ni ñuy dumaa say morom ah dundu gaa ngi jeexagul de boo góorgóorlu baax rek dañ lay fay ba nga doublé wu la chaque nit kooku faw mu góorgóorlu moo tax wa atadna laha dañ koy waajalal rizqan kariman wërsëg woo xamante ni wu yaatu la wu tedd la sunu borom ne yaa nisaa annabi ba léegi de gis nga de yaa nisaa annabi yéen soxna yonent bi te it yéen soxna yonent bi ak soxna yu jullit ñëpp comme ni ko xaafid ibnu kathir waxee nee na yàlla dafa tàmbalee karwaas gi mu dal ci kaw yonent bi alayhi salaam ak ay soxnaam waaye lim ci namm moom mooy mbooleem jullit ci àddina bi yépp mu ne wa nisaul alamina ah soxna yi juliti àddina bi yépp dañuy topp soxna yéen saa salaam ci àtte bi suñu borom mu ne yaa nisa annabi yéen soxna yi yonent bi lastunna ka ahadin min annisa yéen de lastunna melul leen ka ahadin comme kenn min annisa yemu leen ak beneen jigéen ci jigéenu àddina bi yéen war ngeen a xam seen bopp war ngeen am lu ngeen di bañ war ngeen am bañum rus am lu ngeen di jom te it nag nit buy diir mag day diir nag mag moro ku muy moromanteel xam nga xam nga benn waay boo xamante ni sa waay yegg na ca martaba ju kawe ja di diiranteeg mag ak waa joo xamante ni daanaka sulaar la boo xam ne moom lu ko neex def loolu ci ñàkkal fayda sa bopp la bokk waaye nit ki ngay buur di buy diir mbagg day diir mbagg ci mbaax koo xam ne raw na ko mbaa mu tolloog moom moo tax mu ne lastunna ka ahadin min annisa bu leen xool benn jigéen naan dañuy jéem a roy ci moom parce que yéen yamu leen ak jigéenu àddina bi yéen yéen ay modèles yi yéen lañ war a xool kon nag comme yamu leen ak benn jigéen ci jigéenu àddina bi ay directive a ngi nii yu bàyyi koo ci suñu borom bàyyi leen ci xel ak i ndigle bi ci njëkk mooy fala taxdaana ah mu ne lastunna ka ahadin min annisa yamu leen ak benn jigéen ci jigéeni àddina bi in ittaqaytunna su fekkee da ngeen a ragal yàlla kooku mooy charte bi maanaam yàlla dina leen jox valeur jox leen martaba ju kawe joo xam ni ji ci ngeen di gënee jigéeni àddina bi yépp waaye charte bi mooy in ittaqaytunna bu ngeen ragalee yàlla kon ndeke charte bi tax soxna yonent bi gën jigéeni àddina bi yépp mi ngi aju ci ragal yàlla déggaale ci nag nii charte bi jigéen di gënee moroomam mooy ragal yàlla waaye li góor di gënee moroomu góoram mooy ragal yàlla rek bàyyi ci xel ragal yàlla rek nga mën a jaar gën sa moroom te ëppalee woo ko dara moo tax mu ne in taqaytunna bu ngeen ragalee yàlla yëg leen ni kon yamatu leen ak beneen jigéen ci jigéenu àddina bi li doon simple ci nit ñi dootul simple at ci yéen ndigle yi mooy fala taxdaana bu leen nooj noojal bil qawli ci ay wax bu ngeen dee wax fala taxdaana bu leen nooj noojal bil qawli ci ay wax benn borom xam-xam mu ni borom bi subhanahu wa taala dani fala taxdaana bil qawl te waxul fala talinna bil qawl waxul bu leen nooyal seen baat dëgg la am na ñoo xam ni baat yu nooy noonu la leen yàlla bindee loola tax waxul fala talinna waaye nag ñooñu nga xam ni baat bu nooy noonu la leen yàlla bindee war nañoo xam ni danger bu mag ca lañ nekk ndax porox ndoll soosu bokk na ci seytaane yi jaar pour yàqal leen ndax jigéen kat en général du faral di dëgër baat waaye jigéen bu fekkee du faral di dëgër baat àll neen ba pare wëlbatiku buy wax ak góoru jaambur commencé di di di nooj noojal baat bi log-logal baat bi wengal ko fii jàllale ko fële ngir neexal comme comme ni xaw ma ñan ñan sax léeg-léeg nga gis ko nit ñi di ko def waaw kay mas naa ko wax benn bis xawma loolu seetlu ngeen comme déet orange tigo mboolem téléphone yi àddina bi xanaa saudi ya defe naa ñoo ko amut foo dem boîte vocale daanaka jigéen ngay dégg gis nga seetlu ngeen loolu lu garaaw la te technique la boo xam ni yahudiyatun faajira kooku benn la ñaareel mooy dañuy seet jigéen joo xam ni buy wax sa waay baat bi day ñoddi ay góor ki ngay woo doo ko mën a jot kay lu fi jar neexal loolu yow boo ko neexalee du neex ci ki doon woote boo ko neexalu du neex ci moom ndax xam nga ni kuy woote jotoo ko nga doon woo amoo la la neex loolu jarul neexal jarul neexal de waaye de faw ñu seet benn jigéen mu ñëw préparé wu journal télévisé journal rajo gis nga tey fukki jigéen ak nangam bu ñu daje woon ñuy wut ay journaliste ki gën a nooy baat de bu yow na xelam dal na tëdd ba nelaw te xam ne moom la ñuy jël gis nga yu mel noonu ni technique la bu garaaw parce que jazaaba la dafay xëcc nit ñi léegi dem nañ ba léegi cantine yi sax feeñ na ci demal marché bi léegi cantine boo dem bu doon jaay góor di fa nekk rek léegi dañuy seet jigéen ju sol lu bona bona bona bon loo xamante daanaka boo koy xool sam xel di teey bu fekkee ne ku gaaw a teeyum xel nga ñu teg ko fa doom ak kimmasi juróom benni dërëm loolu lu jar jigéen futteeku di maanaam ça veut dire que li muy war ne mooy ku juróom benn yi moo la gën a valeur yow yow ku jigéen ki ndax juróom benn yi say ween feeñ na ci nga génn ci sa sàkkare yàlla nooj noojal ci ay baat wax saa saa sax nag góoru jàmbur man caa fóonante jigéen jàmbur ci télé bi ngir publicité benn doomu ki ma si juróom benn loolu jaru ko wallahi jaru même même nit ki bu amul diine sax dafa am loo xamante ni xel rek xel rek boo ko bàyyee xel rek xel nangu ko parce que doomu aadama moo gën a foor loolu doomu aadama moo gën a foor loolu publicité benn benn benn paquet singom publicité benn paquet singom rek dana jaral jigéen ji futteeku ci fonante ci góoru jàmbur waxante ci ay wax kottante ci góoru jàmbur singom di jar ñetti dërëm amul valeur maanaam bu fekkoon dañoo bàyyi diine ñu woo ay nit yoo xam ne yu am xel lañ ñoom dañ naan lee di jaru parce que doomu aadama moo gën a valeur loolu moo tax suñu borom di yedd soxna yonente bi te lii soxna yépp lañ ko yeddaale fala taxdaana bil qawl bu leen nooj noojal ay baat jigéen daa war a am fulla ci ni muy waxee fala taxdaana bu leen nooj noojal bil qawli ci ay kàddu fa yatmaa da leen di xemem alladi góor gi nga xam ni fii qalbihi marad xolam dafa feebar billahi aleykum kan ci ñun moo mën a xalaat ab góor dina dégg soxna yonent bi di wax mu déglu baatam affaire bi di ko charmer di ko neex ba muy bànneexu ci soxna yonent bi te soxna yonent bi di sa yaay kan ma mën a yaakaar loolu ahankay ahankay parce que dafa am xol yoo xam dañu feebar xol yi ñetti xaaj lañ al qalbu al marid wal qalbu al mayyit wal qalbu saxiix xol bu feebar bi mooy xol bii ñu tudd fa yatma alladi fi qalbihi marad am na góor ñoo xam ni bu ñu déggee baatu jigéen rek am nañ problème loolu feebar la de gis nga léeg-léeg dégâts yi ngay dégg ci dëkk beeg violé na doomi jàmbur ak def na lii am na ci yoo xam ne feebar la nag loolu bàyyi leen ci xel dëgg la zahara al fasadu fi l barri wal baxri waaye am na loo xamante ni marad la tamit marad la feebar la te feebar yooyu bokk na ci li koy gën a indi nag dégg-dégg beeg gis bi est-ce que seetlu ngeen ni gis nga sunu gone yi gone gu tuuti ngay gis juddoo gut tàmbalee am ay ween te te mu teel xam ngeen ni bokk na ci yi koy waral gis nga yooyu jigéen di ko gis gis nga télé yi télévision yi bànneexu góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur di fóonante ci télé bi jigéen ji solu solu yaramu neen génn gis nga xale bi koy seetaan maanaam sirit yi nga xamante ni moo war a composé pour jigéen mat jigéen sirit yaa nga doon nelaw léegi jigéen ji saa buy seetaan loolu sirit yooyu day yeewu su yeewoo nag léeg-léeg mën ngaa sabab jigéen ji teel a am ay wente fekk yëggu fa sax lii laaj leen ko ñi nga xamante ni ñooy gëstu ci koor doomu aadama ak ni muy évoluer danañ la dëggalal lii ma la wax am na yeneen sabab nag yu koy waral waaye am na góor yoo xam ne ñoom dañoo feebar gis nga bu nu déggee baatab jigéen rek waxuma sax ay kuy nooj noojal baat baatab jigéen rek bu nu ko déggee rek yegg nañ fan doon dem loolu defe naa moom kenn ku nekk dégg na ci ay xabaar yu bare bare rawatina suñu réew mi nga xam ne xaddis wala xaraj gis nga loolu dafay am loolu feebar la nag ki feebar noonu dafa war a faju ki feebar dafa war a faju dafa am xol yoo xam ne dañoo feebar ba yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku kañ doon tuddee Majnun Layla te imam Zahabi di ko tarjamaal ca mu jalat bu njëkk bu ñetteel ba ca tàmbali ba ca siyar nga xam ni dafa bëggoon jigéen ju ñuy wax Layla ba nee na moom bu doon dox ci mbedd ba dégg ku ni Layla même bu waxut besam ma xam ni waxut saa bes sax damay xam xam nga loolu loolu feebar la feebar la feebar la bu bu ma wóoree ni ki ngay woo du moom sax du saa bos ba waaye jëmmi tur wi nga tudd rek xamloo na ma muy dem na ba kaaba ga nit ñay ak ma dégg ku ne laylaa rek mu daanu xam yooyu feebar la feebar la loolu feebar la ba léegi nag day am nag ba léegi tey jii si si saa si mu ngi am su ko defee yu mel noonu nag góor gi mu dal moo war a ragal yàlla mu xam boppam mbokk yi ñax bu ko wéeree ni daa tooy dafa waw lan lay wut ci pegg taal lu muy wut ci pegg taal da ngay moytandiku waaye doomu aadama day fekk loo xam ne danger la ci moom au lieu que mu moytandiku déedéet maanaam góor gi nga xamante ni moom dafa yëg ni xolam dafa feebar fa am jumtukaay ngi nii benn na moytandiku bu baax yéex a takk soxna parce que musiba la ci moom ñaareel bi barabi jigéen na ko so na ko sori fu jigéen ñay waxantee ay kaddu wala fu ñuy weetee wala yu demee noonu na ko sori parce que loolu feebar la ci xol day wulli di màgg ah di gëmm di giim fa yatba alladi fi qalbihi marad am na loo xam ne ay qalbul mayit kooku moom daanaka moom mooy xatama allahu ala qulubihim al qalbu saxiix mooy góor gi nga xam ni wallahi lu mu dégg jigéen di nooj noojal baat mais malgré que bu nit ki yëgee ni sax kii li muy wax baat bi am na ay mbir yu neex neexaan yu ci am jamono jooju jan lay yëg ci xolam day am lu ko metti pourquoi parce que lii may dégg nii mi ngi am lu muy bëgg a yàq sama xol te yàlla daf maa tere lii au au contraire que muy kontaan ca la muy dégg comme fa yatma alladi fi qalbihi marad tamaa ki koy def day kontaan nga xam ne da ngay bëgg jigéen ji gën a wax non allez-y allez-y continuer fekk déedéet li ndaw si wax doo nga ko neex loolu rek au contraire que kii moom day bëgg jigéen ji noppi wala bu mu waxati wala du la sax déglu foofu nag maa ngi ciy profité occasion gis nga journal parlé yii jigéen ñiy def góor ñi nañ ko moytandiku moo xam télé la moo xam rajo la dama ni góoru jàmbur jàkkaarloog jigéenu jàmbur ci télévision te gis ngeen nit ñi nit ñi demee journal ku ci dem journal moom sax jour boobu booy dem da ngay mel ne kuy dem ngénte moom mi ngi maquillage mi ngi pastelu mi ngi rosaawu solut mbubb solut yére solut lu kenn xam ay daggit lan boole rek tëyal ba tappal ko ko mu ñëw sol nga jàkkaarloog moom 45 minutes fixé ko di ko xool ci la xaram la bokk boo ko xamee boo ko xamul boo ko nangoo ci lu xaram la boo ko nanguwul yëgal ni mi ngi yàq ci sa xol def ko atte nga xool la nga daan yëg ci ngëm yàlla tus nga dul yëgati lépp ay dem da ngay jékki-jékki rek xalangoo ca kaw wadd ci suuf wa kadalika même rajo yi xanaa góor a ci tane gis nga de moo tax sunu borom sunu taala mu ni fa yatma alladi fi qalbihi marad ki nga xam ne xol bi dafa feebar xolam dafa feebar ci kan ci soxna yonente bi alayhi salaam kon fa kay fakk yeneen jigéen yeneen jigéen taxut di wax soo gisee jigéen ñi ñu bëgg ñu sàmm ñu moytandiku wax wax ju am fulla comme ni ma leen ko waxee ci suratu nuur te yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku ci suratu qasas inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta lana point nga pare ca ey mu ne naam mu ne sama baay moo la woo nee na nga wuy si ko da laa soxla pour mu fay la li nga ñu defal jeex na ah waaye sa waay yow boobu léegi yaa ngi fee yow moom sonn nga ah yow yaa ngi bëgg tijji ay buntu déedéet wa qul na qawlan maarufan waxal wax ju simple wa qul na waxal qawlan maarufan wax ju simple ju jub ju gàtt boo gisee Saoudia lu bari ci seeni borom xam-xam di bañ jigéen di jokkoo ak téléphone góor sax loolu la ñoom moom seen mbir yegg na foofu maanaam boo gisee léeg-léeg mbokk yi di mën laaj di laaj masala yu mel noonu ndax borom xam-xam dañu dañu araamal déedéet ankay jigéen mën naa wax ak góor téléphone dara newu ci dara newu ci bu dee wax jëmmi wax dong la dara newu ci xëy na ña koy bañ nag jàpp gu ñu jàpp ni góor ak jigéen danañ yegg foo xam ni waxante téléphone ma dëgg la loolu nit ka la concerné te masaayil yi mel naa ci conseiller sama mbokki ndongo yi ñu bàyyi xel am na réalité yuy daw ci barab sàngam ba tax seeni borom xam-xam wax ca bokkut ak réalité yiy daw fi nun ba tax suñuy borom xam-xam war caa wax loolu nañ ci bàyyi xel Saoudia boo seetloo la fa ëpp ay célibataire la ñuy doon benn ñaareel bi takkum ñaari soxna ñetti soxna ñeenti soxna bariwu fa ñeenteel mooy góor ak jigéen amuñu fu ñu gisantee sax bay waxante ay baat te nit moom nit dong la kon benn moyen lañ mën a am pour di jokkalante muy téléphone kon seeni borom xam-xam suñu xamee loola mën na nga def li ñu tuddee sabdu zaraa ngir fatt buntu boobu am nañ ca droit kooku nañ ci bàyyi xel su ko defee kooku moom la concerné waaye concerné wu du ñun lanu concerné kay mooy góoru jaambur bu jokkoog jigéenu jaambur di waxante caaxaan ci téléphone loola moom beneen affaire la am maa jëmi nit ki woote téléphone te digg jigéen dara nekku ci dara newu ci amul benn tegtal boo du si wax wax salaf lu koy xaram fii ak ña nga yem ca waxante ful la waaye nag muy téléphone muy biti téléphone waqul na qawlan maarufan am na yenn jàmm sant yoo xam daa ëpp dafa ëpp ci diggante góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur mbokk yi julit bu jigéen dafa war a fiir ci boppam julit bu góor dafa war a fiir ci soxnaam yonent yàlla bi nee na saxaaba yi yéen waaw bu ngeen ñëwoon benn waay bu ñëwoon fekk kenn ci soxnaam nooy def Saad ibnu Ubaada ni dama koy jàpp fajaraate ko fajaraate ko comme jigéen buy togg yàpp ni muy def ndawal saxaaba yi ni waay kii moo soxor yow nit noo koy fajaraate yonent bi ne yéen a ngi yéemu ci fiiraangeem gi tax muy fajaraate waaye maa ko gën a fiir te yàllaa ma gën a fiir yàllaa ma gën a fiir nga ñëw ci société bi mel ni Sénégal nag nga xam ne dëkk day am na dëkk nga xam ne léegi góori jàmbur ak jigéeni jàmbur dañuy dëkk bakkaar yi gën a mag ginnaaw bokkaale yàlla bokk na ci mooy nit njaaloog soxna soxna dëkkandoom lan moo tax yonent bi di taamu di ko pointé foofu lu tax parce que nit ki ki mu dëkkal ay relation dafa mën a yomb ci ñoom koo xam bisimilah yéen a ngi gisante léeg-léeg jigéen ji sax rëccale ak muuraayam xaw a yolob lé yooyu ay mbir la yoo xam ne gis nga seytaane mën naa commencé 2005 gis nga 2005 de di préparer rek teere parce que moom yàkkamtiwul demut ceet demut ngénte feebarul joxewul dépense joxewul dara innama yad'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir moo la mu am sa àndal safara la bëgg mën ngaa dëkk ci kër gi 2005 2006 2007 ba 2012 li mu bëgg doo ko am moom amul problème yàkkamtiwul moom bu la dóoree na nga daanu mbaa nga fakka solu sa bañ damm mbaa nga dëkk lu mu am baax na moom bañul dara moo tax matukaay yoo mën na nga ko jël jigéenu jaambur góoru jaambur dañoo war di sorente comme ni ko yonent bi jàngalee alayhi salaatu wasalaam am na mbokk muñ may nettali xaritam daa jóge fu sori ñëw ca kër ga fekk fa borom këram nekku fa te li may wax ku góor ka xam naa ko ku jigéen ki xam naa ko ñu ngi dund ba tey ana sa borom kër daa génn ku fi nekk yow kese ah nu may def nag man de maa ngi jóge ba barab sàngam mu ne ko demal jàkka ja nga toog fa xaar loolu mooy fulla am na meneen mbokk moo xam ne ne man ndongo bu mu doon jàngal la benn bis mu dem di ko ziyaare ñëw fekk muy fóot ana waa kër gi dañoo dem marché man rek maa fi nekk ndaw si xoolal ndaw si mu ne ko ah wax dëgg yàlla defi ne ormal naa la tool ndax yaa may jàngal waaye nag mënu ma laa entrer nga ñëw parce que kenn newu fi ci kër gi allahu akbar hakada nittiliwu ma ay yu yàgg ya de lii may nittili ñi koy def ñi ngi dund ba tey moo lay wan ne maanaam njàngale yàlla ak yonente nit ki bu ko jafee am na ñu koy dund kon suñu borom ni fala taxdaana bil qawl bul nooj noojal sa baat ah di wax di lonk-lonkal baat ak comme ni ko gars yi defee ra xam nga seen ra r yooyu ah maanaam roulé di roulé roulé r yi amul njariñ loolu di njariñ ra moom ra rek la ma sa nekk ba faaw ra moom léegi da ngay gis ko nit kuy làkk français wallahi da lay soof sax yow li war a nekk R dana ko tuddee noo xam ne yow doo xam sax lan la ra R R dong la ma sa doon mënee su la moderniser moderniser ba mu changé gis nga yooyu nag nit ñee koy def exprès di wax nag léegi di wax ay baat yoo xam ne day xëcc nit ki di ko moo tax léeg-léeg da ngay gis discours bi dañuy bëgg sax soxna si def ko soxna su jonge soo xamante ni sa waay ñeme ay góor waw bët ba nuroog aw doj yu mel noonu baaxul ci jigéenu jàmbur moo tax góoru jàmbur dafa war a fiir ci soxnaam fiir lool. fiir ba fiir ci jigéenu jàmbur sax laa wax tey boo romboon góoru jàmbur jigéenu jàmbur ñu taxaw yow xamoo sax kii kan ak kan la te maanaam xam nga ne ay jàmburante lañ sa xol baa ngi jóg noonu la julit di mel loolu mooy wane ne yow kat naarul xiira tàkk tàkkee fiiraa ngi ji fayagul ci sa xol waaye tàpp sante gi xastante gi waxante gi lu bon ah xam nga ni góor bu demee ah yow temps yi góor bu demee bay wax na jàmbur temps yow da ngaa leer mbokk yi loolu dafa xaram de wallahi mbir yi war a àgg foofu warul àgg foofu déedéet temps yi da ngaa leer ah yow temps yi moom lu xew yooyu soxna jàmbur ak góoru jàmbur séquñu ko déedéet ah yow sa kii bi dafa rafet ah foo jëlee lii déedéet yëre bu rafet kooku borom këram a ko war a wax waaye du yow kooku bu doon ca saxaaba ya danañ la def lu bon a bon a bon sax ay soxna saxaaba boo deseloon ni sa sax sa tisu bi daa rafet keroog ngay fanaane àllaaxira yooyu daawuñ ko muñalante mukk gis nga am na yoo xam ne góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur sequñu ko ci ay wax fan war a yem nag nan fay yem nag dëgg la waxuñu bul kaf parce que kaf dagan na ci sunna waaye dafa am ay dawabit ak ay ay suroo waaye jigéenu jàmbur ji ak góoru jàmbur ñoom ñaar yamante nañ ci waxante lay ful la ñu yem ja nañ waxante wa seen waxi àddina ak lan séq la nga xamante benn bàkkaar amu ca moo tax sunu borom mu ni fala taxdaana bil qawl bu leen nooj noojal seen baat yi di charme góor ñi di ñod di li nga xamante ni moom mooy góor yi nga xam ne ñoom feebari xol fa yatma alladi kon da leen di xemem alladi góor gi nga xam ne fii qalbihi marad xol bi dafa feebar te xam nga ne bu yàlla jàkkaarloog saxaaba yi di wax nan ko xolam feebar te saxaaba yi la xanaa ñun kon ñun ñëpp la suñ xol yi dee saxaaba yi rek dañoo xal ne fa yatma alladi fi qalbihi marad kon boo ñëwoon suñ société bi nga ni feekat ci misaal amoon na 5 pour cent ñoo xam ne fa yatma alladi fi qalbihi marad boo ñëwee fii da ngay am 99 virgule 5 pour cent ñoo xam ne ñëpp fa yatma alladi fi qalbihi marad lañ parce que tey la jamono gën a yàqu tey la nit ñi gën a yàqu tamit kadalik suñu borom mu ni wa qul na na ngeen wax qawlan maarufan wax ju jub wax joo xam ni amut ay nooj noojal baat ay jigéen buy wax amul sax loo wax lan la na nga wax lu leer même li ngay wax sax jërul ñu la koy laajaat wax ko mu jub te leer sunu imam Aboubacrin Sall bu parcelle jazahu llahu xayran wa xafida wa xafida jamia al ulama am na kaset bu mu def ci relation yi war a dox ci góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur bokk na ca lam doon wax mooy jigéenu jàmbur daa war a mel ni gaynde ak simi ci kanamu ja góoru jàmbur te boo ñëwee sa kanam borom kër nga nooy ba gën a nooy éponge aka wax dëgg góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur séquñu kaf amuñu ñoo bokk fu ñuy liggéeyee amuñu yaa may jàngal amu yooyu amul de islam amul yooyu islam li mu am mooy nit ki góoru jàmbur nga jigéenu jàmbur nga xaraam na ci yow lu doon xool ca jig biti dañ koy xaraam ci yow luñ doon waxante tamit kadalik suñu baram teg ci ni waqar na mooy li wolofi nan na ngeen réegu na ngeen toog na ngeen réegu waqar na fii buyutikunna na ngeen réegu seen biir kër yi wala tabarraj na bu leen jaayu tabarrujal jahiliyati l ula jaayu ga nga xam ni ceddo yu njëkk ya dañ ko doon def bu doon suñ jamono jii moom jaayu gi mooy ndaw si day bàyyi ba ngoon jot mu sangu ba jekk pastelu solub xàppati xam nga lu muy jënd ca marché ba naanaa jëndi naanaa ca marché ba daa jar lii lépp ku koy day jaayu laa sakka ni kii day jaayu jigéenu jàmbur bàyyi ba yoor yoor jot mu war a dem marché dem marché nga sangu ci faaru ci pastelu ci waaye yii yëpp ku koy gis xanaa waa marché loolu ci jaayu gi la bokk dem ngénte yaag dem ceedi moom moom waxumay waxam sax faf nag moom yii nga xam mooy farata yi laa doon wax sax man jaayu gi alxaafid ibnu kathir mu ni bu njëkkoon gars yi da ngay gis koo xamante day sol te kat man misaal moomu xàppati dong laa ko mën a tuddee man mooy koo xam ne day sol loo xam da koy kuppati ba ab dënnam di feeñ gis nga jigéen ñi léegi ni ñu saay-saayee nag dañoo saay-saay gis nga seytaan yi daf leen di déey technique yi nga xamante ni muy ñuqati xolu góor gis nga téere yi bu ñu koy ñaw dañ lay ñawal ba yegg si ci dënn bi ñu kuppati ko d'une forme boo xam ni maanaam xar-xar biy dox ci diggante weeni ndaw si dafay feeñaale li gën a bon te gën a mën a yàq xolu góor a ngi noonu billahi alazim billahi rabbil kaaba góor guy xool lii di nga dem ba dootoo jooyalati yàlla dootoo jàngati alquran yëg ci dara te di nga dem ba li nekkoon ci fiiraange ci sa xol lépp ay dem lii may wax nii ñun ñëpp xam nañ ko parce que ci fu bon fu mel ni fii nuy dund la ñuy dund léegi ci journal rek maa ngi dégg ci rajo ñu naan xawma sëriñ daara yi nekk parcelle ñooy bind benn dema xawma lan naan diw xawma koñ waxati sax xawma benn jigéen bu ñuy wax naan li muy soloo jaadoo tut nangam nangam nit ñi dañoo faale yooyu yii day yàq xol moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ni waqarna fii buyutikunna jigéen ñi nañ toog seen kër yi jigéen dafa war a toog yéen sa salam ba Ali ibn Abi Talib jàppante ak Fatima ci mbirum biir kër yéen sa salam daf leen a lijjanti ba noppi ba mu leen lijjantee dani Fatima liggéeyu kër géeg la ca biir réegul ci kër gi nga liggéey liggéeyu kër gi Ali ibn Abi Talib génnal yow ngay dem di wuti kon lay cosaan mooy góor di liggéey jigéen di toog ci kër allahuma lu dul dañoo dem ba lor am même borom xam-xam yi daganal jigéen génn dem liggéey dafay am ci ay shurut charte bu njëkk mooy borom këram na ca ànd charte ab ñaareel mooy na solo ne islam bëgg di solo ñetteel mooy bu mu wéet ak ay góor fa muy dem ñeenteel mooy bu mu jaxasoog ay góor te yii ma lim daanaka benn ci dul am te jigéen ñaa ngi génn ñuy góorgóorlu ci diine sax nag faf laa wax ndax tey boo demee ci liggéeyukaay bala ñoo am lu leen neex demal ci lycée yi demal ci lycée yi dañuy si yenn professeurs yi gis nga bu ñu xamee ni yow mi da ngay bañ a bañ a toog ak jigéen sax dañuy gémélé eh diw toogal fële ngir bëgg nga nga laal jigéen ji loolu rek a leen neex maanaam dafa mel ni kon seytaane day ñëw soobu ay nit ngir ñu nekk ay saay-saay yuy ëffal ñeneen moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni wa qarna fi buyutikunna na ngeen toog seen kër yi moo tax soxna sawdatu soxna yonent sa salam bu soxna yonent bi musaana aj aji moom du dem bi yonent bi faatoo biñu ne ko waaye yow lu tax doo aji mu ne sunu borom nee na waqar na fii buyutikunna kër gi moom su ma ko génnee dañ maa yóbbu di ma suuli allahu akbar te xoolal aj ak umra di kafaara say bakkaar comme ni la sa yaay juree woon nga man kaa bàyyi ngir jëfe aaya ji wa hakada kaana al muminat kaanat al muminat wal muminuun dafa mel ni waxtu dab nañu ñu ngi taxaw noonu xëy na suba ñu tàmbalewaat ci aaya jooju nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq li ñu dégg borom bi subhanahu wa ta'ala bañ a def mu nekk lu ñuy dégg rek waaye mu nekk lu ñuy jëfe te suñu borom yombalal nu ko ñaan yàlla mu delloowaat jullit ñi ci seen diine dëgg-dëgg delloo wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
damay bañ ko jaay sama téere maa doo ko jaay